waaye liñ ma nettali ca nam ko waxee bëgguma jaar ci baari di ci jum waaye nam ko waxee demeewul noonu Serigne Touba dégg ngeen Cheikh Abdoul Ahad la mu wax waxi wax ji leer nañ la ci koor fu mu fi mujj fekk Saxbaan tàggooguma Ramadan nuyooguma koo xam ne Saxbaan Ramadan ñoo lay ñoo lay nuyu nag ku àgg foofa sa digg sa borom eh, tuuti ne ci mbindeef di la wax rawatina tubaab te tubaab yi Serigne Touba xam ngeen ne mosu leen a nongul dara ci ci bañ ko bëggee takkal médaille defa gàntu bañ ko bëggee dem dem ba ci mujj gi ñu àgg ci ne dem nañ ba xam ne liñ jortoon ci ak liñ amoon liñ liñ bëggoon amut ndax gis nañ ne mboolem ñiy woote lu baax rawat na suufiyanke yi dañ dañuy dëddu àddina ne ci àll bi di lekk eh, ay xobi garab walla ñuy dëddu loolu bu amee àdduna kenn du ko dundal mm-hmm. yow nag gis nañ ne lislaam ji ngay woote ñépp danañ jub ñëpp danañ tegu ci yoon kenn du tooñ te nit ñi itam adduna si dana defar ndax nit ñi danañ liggéey kon nag dañ laa bëggoon a jiital ci liñ daa tudd AOF li nga xam ne France moo ko yilifoon nga jiital islam bi yëpp bañ ko waxee sëriñ bi sëriñ bi laaj leen ba xam lu ci seen xalaat ñooña mag rafet lu ko ne lool ah, loolu de xanaa mbégte la ndax eh, ñoom de ndegam ñoo jortoon ci yow daal dem ba wëlbatikuwaat wax ne dañ laa bëgg a jiital loolu dana am solo ndax eh, ñoom buñ xasee ba jiital la dañ ci force ñëpp Sëriñ Tuubaa nee loolu nag laay bañ ndax yéen ñi ànd ak man de lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi ko xam nga loolu lu ko waral da ngeen ànd ak man ngir yàlla ci seen coobare ñoom nag lañ bëgg bu amee ku ci ànd ak man du doon du doon seen coobare force lay doon mhm. te laa ikraha fi diine daan te innil kaafiroona illaa fi xurur nee na ñi wedd yàlla luñ la wax rek ay wor lañ ca kon Sëñ Tuubaa mbiram wees na loolu kon kuy wax na wax ca la nga gëm wax ca koo xam ne gëmoo tasawuf yem ca la nga gëm ndax ñun amuñ jotug di tontonte loolu nit day nekk ci lam nekk gëm la muy tawfeex ju rëy kenn